pétrole du ko borom troisième mandat dañ ko fi tere sul pétrole du ko téré xeeñ monsieur le maire de guédiaway Ahmed Aïdara

macha allah kooku ngeen di gis suñuy écran duñ leen ko présenté muy Cheikh Abdoul Karim Xurum ñu nitu dëgg buñ ko woowee Cheikh dafa ni nitu dëgg yi kaa leen taxaw nii moom nag moo fi laaj fas la wala bay xar la wala nag ñun waxuñu ko moom moo ko wax dañuy bàyyi nag moom du présenté wu kenn waaye waaye ne gis nga sa waa ji neen ñëpp ko wax tey sax paate dama leen woon Karim waaye naa njëkkee fi ba pare ki ne ñun ñëpp ko wax jori ñu ngi siyaar naka xéewal yi ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah tey yéen nitu dëgg yi ngeen jug ñëw ci lii waaw ñu ngi nii de mhm. parce que li li li yoon li yoon li yoon mel mhm. ñëpp ñëpp gis nañ ko mhm. te xeex boo xam ne bien vrai que Y'en a marre FRAPP ñoo ko woote mais xeexu Sénégal la parce que justice justice sénégalaise la ñu wax ñun ñëpp ku ci am problème yoon moo lay atte quoi te ku ci am lu la metti koy dem jooyee mais gis ne ni yoon jéngee moo tax ñu koy xeex waaw xeexu ñëpp la quoi te ñi ngi wootam sénégalais nañ ñëw gën a teg jëmmal seen bopp ne yoon moom bu jëngee moom baaxul ci kenn mhm. waaw Baye Karim sa waay ne yoon bu jëngee baaxul ci kenn moom wax na lépp ah c'est wax na lépp gën a grave xam nga injustice day créer ay mhm. xam nga lu tax ñu jàpp kii bàyyi ma lu tax ñu bàyyi kii jàpp kee yooyu day créer ay monstre léegi mhm. loolu nag mooy indi loo xamante ni après kenn du ko mën a contrôler quoi moo tax li ëpp ci réew mooy justice dafa war a équitable loolu mooy jàmmu réew Sénégal nag actuellement malheureusement pouvoir exécutif bi dafa piétiner ci judiciaire bi quoi mais dañuy wax rek ni li am solo moy Sénégalais comprendre que ñun ñëpp li ñu tax taxaw fi moy pour justice bi équitable que justice magistrat ñom seen jëm bopp sax ñun ñu dimbali len ñom ñom ñoom pouvoir exécutif bi tégg len tank ñu feex quoi mëna mëna doxal xam nga par rapport seen i diplôme par rapport seen métier ak seen dignité ak seen honneur quoi waaw loolu moo tax ñu taxaw fi ñu chaque jour Karim nga dégg gars yi naan justice justice te dara dara dara yow ci sa jëmmi bopp xam nga ni changé wu tant que yéen waa nitu dëgg ngeen fas yéene taxaw fi pour loolu nekk ci yoon waaw mais du nitu dëgg c'est-à-dire li koy jooy c'est-à-dire c'est-à-dire tey gis yoo xam ni mënu ko sax imaginer am solo lenn la xam nga wax naa ko ba sonn changé wu loolu loolu loolu ay waxu ku amul la ñun duñu bàyyi mukk fa tant que amuñu gain de cause te loolu mooy essentiel mooy ñun ñi ngi fi di xeex te dañuy xeex ba keroog ñu am genn cause waaw incha allah rek fekk ñu ngi fi di nooy dañuy raak ba keroog ñu am genn cause donc dañu am réew c'est-à-dire justice moo ko yor réew bu amul justice musiba naaru laay loolu bombe à retardement la parce que dañuy wax ni injustice day créer ay monstres

parce que même ñi fi nekkoon avant Macky Sall même Abdoulaye Wade sax def na lolu. c'est-à-dire Sénégal lañ tëgg tëgg boo xam ci constitution yi ni mu ko lalee pouvoir exécutif bi à chaque fois dafay mën a piétiner ci lu ko neex te loolu lu ñu war la mu daj donc le mal est profond donc combat bi est loin d'être gagné ci juste taxaw rek ne nañ bàyyi diw wala nañu xeex diw mooy fexe ba texte yi nekk laloon noo xamante ni d'autre dootul am accès ci dara kenn dootul mën a maanaam euh, juge bi magistrat bi dina mën libre atte nu mu ko neex def lu neex ay nomination am ak ay kiraayam ak ay gradam du dépendre ci le ministre bi nga politique moo fal comprendre la la réforme yu baax ba pare base indépendant indépendance au sens du mot en réalité de merci est-ce que le président de la République génn ci li nga des magistrats hmm? pardon est-ce que le président de la République est génn ci union des magistrats non mais là, la fay def parce que dañ c'est état de droit lan état de droit la république république c'est lan pouvoir exécutif judiciaire et législatif bu nekk pas indépendant indépendance c'est lan

dossier boobu man douma ci si sori lu ma si wax rek moy c'est-à-dire il y' a plein de dossiers yo xamanteni ne nii tey ngi ci yoon nek ci ay nit yo xam ñu ngi si kaso bi ñu jàpp leen si ay cas yo xamanteni amana mo moo gën sax ñu ngi jàppe ñooñu Thierno par exemple liñ ko jappé ay cambriole cambriolage ay teup kër jambour ay lolu man gis na sama xarit bu ñu japp ci lolu te ba légui tëdd na 8 ans ci kasso bi mo gën yag rebeus rëbës donc kenn aatewu ko donc lolu la ñuy wax en réalité donc kilifa lu ndaw la si lii lu ndaw la si combat bi combat ñun bu ñu taxawee fi kilifa taxul ñu taxaw fi sénégalais yi moo tax ñu taxaw fi justice mo tax ñu taxaw fi pour liberté justice bi. dem déglu nañ Chimère également Chimère djouf mi nga xamné mo jité jiite euh, Union des magistrats du Sénégal néna na attaqué yi dañoo est-ce que jàpp nga aussi problème la. lepp néew Sénégal Sénégal policiers yi doy ñu sen salaire doyu leen médecins yi doy ñu sen salaire doyu leen sage-femme yi doy ñu sen salaire doyu leen gendarme yi doy ñu sen salaire doyu leen magistrat doy ñu sen salaire doyu leen c'est-à-dire kenn doy lan moo Sénégal lan mo mat lenn rek mo mat moy caisse noire Macky Sall moo mat amul leneen lu complet fi lu mat c'est le cas de Bougazali. dans tout ça répétition à chaque fois lui prouver injustice bi Sénégal luy prouver c'est-à-dire ni Macky Sall abuser ministre de la justice dafa taxaw wax ko affaire député affaire carrément c'est grave